kàddu bu baax a baax a baax te di bëgg lool ci taxawaay bi nga xam ne taxawee nañ ko lii di CRD bi te am lu ko jiituwul muy CRD ni nga ko waxee les sant la gërëm di nuyu préfet bu baax di nuyu sous-préfet di nuyu itam chef de service yi fi ñëw yëpp ak ñi leen fi représenté di gërëm itam comité bi ma euh, comité d'organisation bi ñu andal ñëw fi ak presse bi di wax ni lu mel nii kuñ ko defal war nga nangu ne jëf ci am solo la ndax dañu wax ni al itiraaf bil jamil reconnaître njekk ci la nun bu ngeen tolloo ni ngeen toll toog woonuñu ñëw ngeen ni nu ngeen ko bëggee nu di ko waxtaanee par benn te lu génn ngeen indi ci solution boo xam ne xam nañ ni jataay bi moñu ko may waaye mënaluñ ko suñ bopp kooku kon jërëjëf daf ciy war jërëjëfi sëriñ nag woyof na waaye woyof na ci ñëpp sax waaye jërëjëf moom ko dégg ñu wax kooko rek am na lu mu def ba tax ñu ne ko jërëjëf waaye nu nag buñ nee jërëjëf dañuy jël suñu jërëjëf ju ju tàllal suñuy loxo suñu borom subhanahu wa taala ñaan ko mu may nu ñi jëf-jëf jooju yàlla fayal leen boppam te taxawul leen boppam te sàmmal leen boppam te li ngeen di liggéey mooy taxawu jàmmi askan wi ak àdduna bi loolu itam yàlla suturaal leen ci may leen ci ndam yàlla def jàmm ci réew mi ñi ngi gërëm bu baax nag taxawaay bi fi nga ko tàmbalee léegi ci président de la république premier ministre ministre de l'intérieur ak ñi nga xam ne ñoo def intervention yépp ci biir liggéey bi waaye di ko jaarale ci yow nga jot leen ñu ko ña ca kaw ndax loolu waxoon naa ko bërki démb nee naa woon préfet ah li nga war a def de def nga ko mu ne ma man day li mu war a def naa ko dinaa ko jox sama kilifa moom la mu war a def mu def ko waaye li nga war a def def nga ko ba mu rafet kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla fay leen ku liggéeyal yàlla yàlla fay la mag ñii ñu daje taxaw ñu daje fii dañu liggéeyal yàlla xam nga monsieur le dañu ne euh, benn nitu yàlla def ne man aasha li nafsihi aasa saxiran wa man maas wa man aasha li xayrihi aasha kabiran wa maata kabiran wa zakarahu naas hmm. ku def dara ngir sa bopp kese nit ku tuutee ngoog bu fàttoo nit ku tuutee faatu hmm. bu faatoo ñëpp fàtte ko waaye ku doon dund ngir nit ñi jox boppam yàlla di liggéeyal nit ñi soo fi jógee soo faatoo ku réyee faatu buñ la dencee ku réyee dañ denc waaye itam nag nit ñi duñu ko fàtte bu mukk lii lépp kenn dutu ko fàtte ndax lu baax rek la yàlla na yàlla fay jël salaamaaleykum wa rahmatullahi wa